وداد كل يوم وسكون Rasul alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadil makin wa ala alihi sabir ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew yaa ànd ak seen télévision Touba TV télé bi lëkkale askan wi niñ ko defee woon daaw ni ki daaw jéeg saa bu bis bu tedd bii jub see ni serigne salih dan waxe sa buñ waxe ci magal mu fàttaliku gàmm ñu man ko waajal bu baax a baax ndigal loolee nag tax mu rogalat ba gëna yaatu ci rew mi ak bitim rew lolo waral sa bu gamu jubsee ñu dem ci barab yi nga xamne dañuy dundal gàmm te diko ko bàyyi xel waye rawatina barab bi ñu nekk tay ji xel dana dem ci ahyatu mawlidan nabi min ashasi wa qadali fawqa al fi tarsasi waye xel dem itam ci yeneeni i xasida yoo xam ne sëriñ bi def na ko ay rabiul awal lépp ngir fonk gàmmu gàmmu googee nag sunu njaboot gi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ Tuubaa sëriñ Saliou Mbacké njabootu sëriñ sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ginnaaw bi ko sëriñ bi fàttali kay ngir na fonk gàmmu da caa waxoon ne yemale ko bis ba ko jiitu wala bis ba ko fete kanam daray àdduna jëru ko loola tax na ñoomaat beneen fabuwaay beneen waajuwaay woo xam ne dan ko def di ko dundal ci barab yu bari ci barab Serigne Touba Cheikhul Khadim eh, barab bi ñu nek nak tay ji day barab bu tedd di barab bu mag di barab bo xamni ni dafa bok ci njabootuk serigne bi muy domi Cheikh Abdoul Fadal nekkon jëm joo xam ne alxuraan tax ñu bari xam ko alquranul karim moo tax ñu bari xam ko ndax biñ ko denké ci alquran def na ci lo xamne ci daara yi def ci alquran lol dañuy ñaan suñu borom fayal nuko ci barkeb serigne touba Cheikhul Khadim muy serigne Mamour Mbakke mom Cheikh Amadou Fadilou bokatam ci axlu jaxate nga xamni ne duggé ci loolu kenn jàqatut am nan jaxate ak jaxati dañu nuro arfan bi arfin waye taxna ñëpp seen xel dal ligéem bobé nak mané suko ko fàtte mukk waxtu wone dañ koy fatali ko waye nak am yéene di ko ñaanal ndax ni melone ci alcorane ni melone ci nekkal serigne touba cheikhul khadim ci liñ ko dénk kon ñi ngi siaré ab khalifa am ak i rakkam ci cheikh Mouhamadul Moustapha tànn wu tànn ak rakkam yi nga xamne ñom la sekkal ñep cheikh Abdoul Khadir Jili cheikh Abdoul murtada ñom ñep ñu ngi leen di siyaare ba ci serigne cheikh naam yi nga xamne dana yëkëti kàddu léegi waxitam li nga xamne non la serigne bi doon gammo ci bimu jotté ndigal ñi ngi feggoog itam serigne Abdoul Ahad Mbacké mom soxna Awa mom cheikh Abdoul Khadir Mbacké mom serigne touba Seexul Xadiim moom itam dana indi ci sunna cëslaayal gàmmu indi itam ni sëriñ bi fonke gàmmu incha allahu taala euh, donte waxtu wi xat na danañ ci am luñ mën a doyloo sëkk waaye di fàttali rek na barab bi ñu nekk tey ñu ngi sàkku mboolem koo xam ne mi ngi seetaan ñu ngi ñoo ñaanalal sëriñ Mamour mbakke ndax njabootam gi day jàngal na leen yar na leen teg leen foo xam ne ku dikk ci kër gi da ngay mel ni sëñ Mamour gi ci biir dara soppeeku fi loolu moom lu ñu seetlu la. tay ñiko ko seetlu dund rek duñ rek bari na lol ndax seenu bi yar seeni teggin jaar fa seen wajur wa jaaron lim fi bayiwon ñi seenu ko dundal ba mu sori lol gàmm gi nak ñam ci taxawaay bu do tax tan wu tan ñi boole ci tan ci tedd bi kon ñi ngi siyaare fatul khafar yi doon jang legi xaside yi ubbe ko ñu and ak serigne Jibril khulle mo serigne musa mo serigne salih eh, fas yéene ak yeen ci gi ñu ko daan defé kon dañuy daal di nuyoo rek te jox ku tedd ki serigne cheikhuna Cheikh Abdoul Ahad ñu ngi lay tatagal di la dalal jàmm di wax la sëriñ bi waxoon yaa xëy day fin ata bil bishri wal madidi ahlan wa sahlan kon ñu ngi lay tatagal di la dalal jàmm di la wax salaam minallahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuhu bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الامين وعلى اله واصحابه وخديمه شيخنا أحمد الخديم عليه أكبر رضوان الله تعالى الباقي القديم وعلى جميع الأمة كلهم أجمعين إلى يوم الدين ما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيرين عافية نيلاي في نيور لزيارة إلى دوكل يعني عند النيب دوكل واتوبا تي في يب تي دي لندال تي بربو تد بيين muy bërëbu nit ku baax di bërëbu alxuraan di bërëbu yiw yëpp di muy kër sëriñ Mamour Mbacke moom sëñ Fallou te di ñaan suñ borom gën ñu koo fayal ay yiw gën ñu koo yokkal ay ngërëm te gën ñoo saxal ci yoon wi nga xam ne ci la nekkoon barke Cheikhul Khadim waaw ci tënk rek ngeen ko sàkkoo muy ñu leeral gàmm cëslaayam ci sunna ak ci sëñ bu mag bi naka la ko fonke woon ak naka la ko daan taxawee loolu lu am solo la lu mat a xam la ndax nit ki li muy def te ànd ceeg xel mu dal ànd ceeg mu leer naa ñi ci boppam ne lii lu yàlla gërëm la lu yàlla bëgg la yemut ak loo xam ne da ciy déngi déngi wala da ciy sikk sàkk wala da ciy jiixi jaaxa Euh, bi ci topp itam ku nekk xam na ne looy def nga defe ko jële ko ci euh, nitu yàlla jële ko ci koo xam ne leer na ne am na ngërëmul yàlla daa gën a wóor ngay làmbatul sa bopp walla ngay jël sa fi bopp euh, looloo tax ñaar yooyu kon mënta ñàkk waaw bu fekkee bu njëkk bi moom dana yomb ndax ku xam lan mooy gàmm rek dana yomb nga xam ne lu am cëslaay la ci euh, sharia lu am cëslaay ci sunna ndax gàmmu li muy tekki rek mooy euh, ay jëf yoo xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ne yàlla bëgg na ko nga jëf-jëf yooya waaye nag lëkk la tax nga di ko jëf mooy wan yàlla ne ko bégg naa ci andil gi ñu andil yonent bi sallallahu alayhi wa mooy da koy def te am ci pas-pas boobu jëf yooyu nag mën naa doon julli mën naa doon jàng alxuraan mën naa doon joxe sa alal mën naa doon euh, teewlu gooy teewlu loolu ci sa xol yooyu yëpp jëf la loolu lépp day dugg ci maanaa gàmm mooy euh, sant yàlla rek ci andil gi ñu andil yonante bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kon buñ leeralee leen lii la rek kenn ku ci nekk danga xam ne loolu lu yàlla bëgg la xamal nañu ne dafa bëgg mboolem xéewal yi ñu defal ñu di ko ci sant ñu di ko niñ ko ciy sant nag mooy euh, ñuy jëf ay jëf yoo xam ne yu gënam la moom suñu borom euh, te dafa amaat tam yu koy feddali ci sunna yu wane ne nekkul loo xam ne lislaam da koo bëgg noonu rek waaye yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy delluwaay bu mag bi ci boppam moom ci boppam da koo feddali da koo fonk ndax dañ ko gisoon mu gën a fonk di woor altine di ko woor lu bare bari ñu laaj ko ne ko lu ko waral mu daan ne waaw day bis boo xam ne ci laa judd nga xam ne kon day mel ne li tax mu di ko woor muy di jëf jaamu yàlla googu nga xamee ne jaamu yàlla gu yàlla gërëm la mooy lim ci juddu mooy sant yàlla ci judd gi mu judd ci bis bi ci am gi mu am ba judd ci bis bi tey bu dara itam ni ma ko waxee woon bis boo xam ne yàlla dal defal na ci defal na ci xéewal nga di ko dabu waxtu wu ñëwee nga defaat ci ay cant defaat ci ay jaamu yàlla ngir sant ko yàlla loolu tamit lu saxa sax la ci sunna ndax yonente bi sallallahu alayhi wa bi muy soog a jógee màkka ñëw ma madina dafa gis yahuud yi daan woor bisu ashura mu fukki fan ci weeru tam xarit mu laaj leen lu tax ñu di ñu di ko def ñu daan ne ko bis la boo xam ne ci la yàlla muccale woon Moussa ci Firawna looloo tax ñu di ko woon ngir sant yàlla ci loolu mu daan ne leen ah yéen de ñun ñoo leen gën a yey ci Moussa daal di tàmbali di ko woor daal di digal saxaaba yi ñu di ko woor nga xam ne kon woor googu lim ci jublu mooy sant yàlla ci muccal gi muccal Moussa kon bépp bis boo xam ne xam nga ne yàlla defal na ci xéewal sàngam gi waxtu bu delsee mën ngaa def ay jaamu yàlla yu man doon moo xam woor la moo xam mboolem jaamu xeeti jaamu yàlla yëpp ngir sant ko yàlla kon loolu lu sax a sax la lu kenn mënta dindi euh, dafa doon nag lu am njariñ moom gàmmu ndax jëmmi sant rek ku nekk xam na ne lim ni mu amee dayo ni ko suñ borom bëggee ak tuyaaba ju rëy ji ci suñ borom di def ak xéewal yu rëy yi ci suñ borom di def bi ci jiitu rek mooy wax ne sant moom waxtu woo ko defee dinaa la dolli kon mooy wane ne bay woo nga séntu lu ëpp la nga amoon ba tax ngay sant saa boo xam ne defal na la sant xéewal ba ngay sant rek xamal ne la ngay amaat ci sant gi mooy ëpp la nga amoon kon kon ak cant saa su nekk la muy jur mooy ëpp la ko jur moom sant gi yi woowu nag am na ci ñoo xam ne suñu borom xamal na leen ko xamal wuññil na leen ko moo tax na ñu fonk ko noo xam ne mosuñu koo fonk dara Euh, loolu mooy indi sëñ bi sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu fonk gi mu ko fonkoon mooy suñ boroom xamal nag ko xamal na ko tuyaaba yi ci nekk xamal na ko ngëneel yi ci nekk xamal na ko yiw yi ci nekk moo tax nag ñu gis ko mu fonke ko noo xam ne mosu koo fonke dara wax na ci lu baree bari ci ay xasida mën nañoo wax ne li ëpp ci xasida yi boo ko seetoo ci mbirum gàmmu lay dellu yenn yi de koy tënke euh, fukk ak ñaar wala boog موتنك يوم المولد ولا موتنك ربي الاول ولا يمل نون لولو مو غنا بالي شي خسيده دا آه، نك من نيو واخ ا واخ بو نيك يتام واخ نكو شي اي واخ يو خامني داي تك تليفون كو غونكو فونكو بوكنا ما جي غنا نون بيسوف كاك ñaar bi dañuy jappé gam waye mom day melne wèr wépp lay jappé gam da hani ila ihya ila ash-shahri kawnuhu xawaakule suudadi kon day mel ne weer yëpp moom la jàppe muy gàmm waaye nekkul bis bi rek loolu li koy firndeel mooy wax ju siiw jooju mu waxoon ne weeru gàmm moom amul bis bu ñaaw nga xam ne weer yëpp la jàppe muy gàmm bis yëpp rafet xanaa kay bu gën rafetante moo ci am waaye bis yëpp rafet ba tey bokk na ci fonk gi mu ko fonk mooy teel gum ko teel a def mooy bi mu koy njëkk def ci lu fés ci loo xam ne nit ñi ngi koy gis euh, di ko dundal dundal gu yaatu booba ci zahir ñaar fukki at ak lu teg ci lay toll mooy béy di nga wax léegi xeeti moo di nabi min assasi euh, kon loolu day tegtale fonk gum ko fonkoon kon ak moom yitte jum ko jox bokk na ci li tegtale fonk gi mu ko fonk dañ daan wax ne weeru gàmm moog weeru koor ñooy ñaari weer yoo xam ne aajo joo ko ci wax moom du ko digal te du ko te du du ko wottee ak leneen aajo ji na ko bëggee noonu nga koy amee ak lu mu mën di doon nag moo tax dañuy wax ne am na ci mag ñi ñoo xam ne seen aajo am na aajo yoo xam ne moom bu ñu ko amee ci señ bi lu mu jàmp-jàmp dañ koy denc ba weeru gàmm ñëw wala weeru koor ñu soog di ko wax waaw ndax xam nañ ne ñaari weer yooyu moom loo ko ci wax rek moom wéwo saxel dal ci te xam ne dana dana lijjantiku loolu dañuy xamal dayo bu mu ko joxoon ak fonk bu mu ko fonkoon dañuy wax ne saa boo xam ne ñaari weer yooyu terwaana danañ moom ko dafa doon koo xam ne ni mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wal wajhu maahil ghumam yi saa su nekk mbégte day feeñ ci xar kanamam waaye day yokk ci weer yi loolu lu mag ñi seede ci moom la mm-hmm. euh, ba tey bu fekkente nag ni mu ko daan defee euh, tamit danañ ko wax ndax bokk na ci liy tegtale fonk gi mu ko fonk ak euh, yitteel gu mu ko yitteeloon moom sëñ bi mooy dañuy wax ne daanaka daana ci boole juróomi mbir juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk ak jaamu yàlla la mm-hmm. muy benn jàngal alxuraan eh, jàngal alxuraan jooju nag li gën a bari fukki kaamil ak ñaar la lan doon nga xam ne dañuy jàng benn kaamil ba mu jeex ñu xatma ko jàngaat beneen kaamil ba mu jeex ñu xatma ko ba ñu fukki kaamil ak ñaar bu demee ba nga xam ne mbooloo mi bariwuñu wala yëf yi xat lu mu néew néew danañ def ñetti kaamil nga xam ne kon alxuraan moo daan jiitu bi ci topp mooy. jang qasidam yi nga xamne ne ay salatu ala nabi mo ci nek xamne moy ne ñu def ko li ñu wax jangum durus lolu itam bokku na ci ni ko daan dundale muy ñaar lolu rek doyna na bi ci moy euh jang ci njàngum kurel moy ñettel bi ci ni ko daan dundale e, nga xamne ñetti kurel la daan doon benn bi jazbu bu benn bi mawahib benn bi muqaddamat. bu ko defee buñ jëlee fukki bayit ak ñaar fii jël fukki bayit ak ñaar ci xasida gi ci topp euh, waaye loolu lépp nag ànd ak am koy jàngale ba albarsan ci euh, loolu tamit bokk na ci ni mu ko daan dundale euh, ñeenteel bi mooy di berndeel nit ñi ci ay ñam ak ci gëtt di leen sotti laj ko lañ mboolem ñi teew ci bërëb bi juróomeel bi mooy barkeelu ci jeexiti gàmmu gi muy xasida yooyu ñu doon jàng barzen ji boobu ñu doon jàng dañ koy tifli ci ndox mm-hmm. ñu di ci naan di ci barkeelu ci tënk daal mën nañu wax ne ak gàmmoom mm, dana tënk ci yi waaw wax na ci lu bare bari ci ay njariñ nag euh, danañ ci tënk rek mm, wax na ne guddi la goo xam ne mooy far ay sikk mooy far ay coono euh, mm, te itam ku amoon bàkkaar guddi la goo xam ne mën nga ca laabi ci bàkkaar mm-hmm. wax ci yu bare bari koo xam ne dundal nga ko la wax Eh, maanaam eh, moom moom gàmmu dañuy wax ne dafa wuuteeg leetul qadr leetul qadr ngir nga mën a am ngëneel li faw danga koy dundal dundal nag mooy na nga ciy yëngatu lu mat boo ko xaajoon ñetti xaaj benn ba waaye bu dee gàmmu àggul foofu moom dafa wax ne boo ci defee dara rek donte benn dërëm la àggut ci nga ci def benn temps bi wala benn waxtu bu bari bu dee leetul qadr faaw na nga ci dundal lu mat sulus ñuy soog a wax ne xëy naa am nga ngëneel li am na ci borom xam-xam yi sax ñoo xam dañuy wax ne dépp guddi gépp nga war a dundal waaye li ma jublu wax mooy wax ji ci gën a digg doomu rek mooy faaw na nga dundal sulus bi bu dee gàmmu nag ngëneel yi takkuwul ci loolu loo ci def lu mu gàtt gàtt rek da nga am tuyaabay ku teewe xare badar ku teewe xunayn eh, am tuyaabay ku dimbali yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ak ngëneel yu bare bare yoo xam ne bi tudd na ko ci jazbul qulub kon daal nañ ko yal na ci suñu borom defal tawfiix ñu yàgg ko fekk at yu bëree bëri te ngëneel yi ñu am ci lu kawe suñ jort. Eh, barakallah Cheikh Abdou Lahad wax dëgg yàlla eh, li nga wax ci gàmmu rek doy na sëkk ndax indi nga sax cës laayil bu dee sunna si waaye li ci gën a neexati mooy bu doon ñetti xaaj la boo defee benn xaaj am am am am am am am barke bi lépp Abu Saxiid ñoo xam ne moo njëkk feeñal gàmmu nekkoon Irbil. bu ko suñu saako di wax moom dane ba nuroog Jurbel ci waaye noonu la ko daanele benn dërëm la daan waajale gàmmu ren ba déwén kon nag tey buñ ci defee lu mel nii ci li nga ko waxee gës bu maay bu xadimaat fukki weer ñaar gës bu fukki weer ak ñaar maay bu benn bunt bu xadimaat barsan bi ñëw atirallahuma xablul karim arifin sasin min salatu rasulin ñëpp awandoo allahuma salli wa sallim barik alayhi ñëpp awandoo ñu delluwaat ci fukki weer ñaar ba yi fi jeex Euh, mooy ni ko waxee mu am solo lool kon gàmm liñ ci def lii rek liñ ci jublu mooy ñu waajal ko la ko sëñ sa sëñ sëñ Saliou daan wax ne yemale ko bis ba ko jiitu wala ba ko fi dara àdduna jëru ko mooy lii ngay rek tey mu mu doy sëkk nag macha allah euh, xam naa ne mënoon naa gën a yaatu lool waaye nag yaakaar naa dana amaat yeneen jataay yoo xam ne dina gën a yaatu incha allah taala li ñu bëgg rek mooy ñu xam lan mooy gàmm ak nuñ ko war a waajalee Euh, kon mënees na cee tonawu mënees na cee bénéfice u li nga ko waxee léegi daxani ilaa ihya isi sahri kaw nahu euh, moom weer wépp la doon dundal ci gàmmu euh, ñun nag dañ ñëw ba guddi gi rek am na ñoo xam ne itam ba minuit sax une heure a jóg dem gàmmu ji tëdd kii tuuti daal ñu àggale seen nelaw waaye loo ci def lu mu tuutut bi sukkarin aw laxam yi comme ni nga ko leeral léegi ci wàllu xéewal yi bokk ci juróom yi nga doon lim léegi moom solo lool yàlla na yàlla gën laa toofeexal gën a yokk xam-xam bi baax a baax waaye nag ci barab bi ñu nekk sëriñ Mamor dafa am nu mu daan teertoo am nu mu ko daan dundalee eh, di ko rey ci ay waajuram di ci sàkk lu baree baree bari tey jii ñi fi nekk di ko defee noona loolu itam marqué ñu lool ndax ñun fépp képp koo xam ne di dundal gàmm rek mun sañoon ban nit ñi ne bàyyi leen xel kii yéen ñi dëkk fii nga xam ne bu jub see ñi mën a dem gàmmu jeeg moom nañ ko bëggee sëriñ eh, Seexuna yaakaar naa gis nga Cheikh Abdoul Ahad fi mu jaar. nga may ñu tuuti sëriñ Mamor li nga xamne tam mom la daan dundale gamu gi ak it feyen ko fasiyene def inshallah taala ak ni ngeen koy dundale bismillah inshallah incha allah yàlla nañ ci yàlla yobuk jam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñi tewlu yep ñu ngi leen di nuyu bu baax baax te di leen ziyara di jiital ci ziyaar bi Cheikh Mahmoudul muntaka xalif général di Murit ak sëriñ Abul Baraka moom Cheikh Fadil di siyaar it sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mamour ak njabootu sëriñ Mamour gi yëpp mi nga xam ne fi la ñuy amale jotaay bu tedd bi di nuyu it mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi di dalal it ak euh, sargal waa Touba TV gi nga xam ne ñoo ñëw fii ci barab bu sell bi ngir fas yéene fee defee waxtaan wi ngir waajale ko gàmm gi. ñu leen di sant bu baax a baax ci jéego yi di leen ñaanali suñ borom fay leen ci wi bu baax baax ñuy yëkkati kàddu it ci turu njaboot gi yëpp ci njiital Serigne Moustapha ñi nga xam ne ñoo mooy suñu kilifa ñun ñëpp njaboot gi yëpp di wax ci seen tur ñi nga xam ne ñoo ci mag ci zahir ak baatin ak ñi nga xam ne ñoo leen féete ak mag ci zahir di siyaar ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy ñoo ñuy teewlu di. leen nuyu Touba TV ni ma ko waxee woon léegi sëñ Afe ak sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne moom la ñu bokkal jotaay bi di profito itam ci jotaay bii di ñaanal ak fàttaliku ak euh, siyaare bu baax a baax suñu kilifa gu baax ki nga xam ne mooy El Hadj Mamour Mbacke Fadilu di ko ñaanal suñu borom dolli koy leer bu baax a baax di ci ñaanalaale it suñu kilifa gu baax gii fi jóge tey jii rek di sëñ Abdou Rahman Mbacke suñu borom dolli leen ay leer ñoom ñëpp ak mboolem ñu fi fekk ca Barsak. di sof kàddu yi rek ci kàddu yi Serigne Abdou Lahad mi nga xam ne noonu la ko waxee léegi muy gàmm ak njëriñ yi nga xam ne am na ko ak ni nga xamee noonu la ko Cheikhul Khadim digle doon ko defalee boppam noonu kon nag buñ ñëwee ci kërug Alhaji Mamor nga xam ne léppam yoonu murit la léppam di ak taalibe ci côté waaye juróom góor Sëñ Fallu comme ni ngeen ko xame ak waaye juróom wu jigéen soxna say jaxate ak ni mu yaroo itam ci ak taalibe ak fi mu jaar fépp dinañ xam ne mbooleem loo xam ne sëñ bi digle na ko wala sëñ bi def ko kooku kenn du ko ci jiitu ndax laytaay bi mu am ak niñ ko mooñee moom moo waral loolu kon mbooleem loo xam ne cosaan la di cëslaay di digle sëñ bi muy du lu ñu war a def ci yoonu murit kër gi du nekk kër goo xam ne ku ci dellu ginnaaw lay doon boroom kër gi it du nekk ku ci dellu ginnaaw noonu it la ko daan defee di ko ànd ak njaboot gi noonu it la ko njaboot gi wéyale ci ginnaawam yar boobu nga xam ne am na ko ak foofu mu jaar di ci ay waajuram ak ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci xencu mboorum yoonu murit ak sàmm li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon yaakaar naa ni loolu ñëpp xamee nañ ko ko ci cosaane cosaane lool li nga xam ne moom la fi sëñ bi bàyyi woon moo ko yóbbu woon ci mbooleem luy digle buñ bu mu xam ne sëñ bi digle na ko daaw ci des ginnaaw ak lu mën a doon nag looyu bokk ci bis bii ñuy waxtaane muy guddi gàmm buñ dee wax ni mu kaan màggale nag dina yomb wax loolu ndax koo xam ne léppam da ko teg ci euh, siraatal mustaqim teg léppam ci alxuraan ak sunna ak njàngaleem sëñ bi bu xamee ne sëñ bi am na nu ma waxee ne noonu la ñuy gàmm moom moom mënta génn loolu te bayit wii rek mën na koo tënk mooy muy taazimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisin muazami kon bayit woo mënees naa wax ne ci la sëñ maam moo daan gàmmoo ni mu ko daan defee nag mënees na cee jaar jaarin gàtt rek ndax ni ma ko waxee léegi xeeñcu njàngaleem seexul yi moo ko taxoon a jug te xam na ne seexul yi moo wax ne ahayatu mawlidan nabi min asasi kon loolu lu yàgg la ci nettali it nee nañ nee na gàmm moo ko daan defal boppam moo taxit moom sëñ Maam moo ko daan defal boppam ci loxoom ba ba ci at yu mujj yi nga xamee ne nu nañ ci egg incha allah ni bi daan gàmmoo nag mënees na koo xaaj ay xaaj yu baree bari ndax dafa mel ne da koo njëkk a tàmbali ci biir ak njabootam boo xam ne da daan dundal dundalub boppam dundalub biir nekk ci biir njabootam toog ci seen biir di jàng alxuraan jàng xasida di leen jox ay bernde ñuy toog di ko di ko teewlu mu leen muy jàng xasida yi moom ci boppam di ko firi it bu yeggee ci lu ci lu mat ngir ñoom ñu xam njariñ li nga xam ne moom la sëñ bi wax eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xasida yi nga xam ne moom la ñuy gàmmoo yëpp xasida yi tàgg la yu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan joxe aw ñam it ngir barkeeloo ko waxi seexul xadim ji faman taaman faman taaman hayya a liman lahu qad xaraa mu euh, mubajjilan euh, euh, fa xabaa xayraati ahlil himami loolu it ci la bokk kon noonu noonu la ko njëkk a tàmbalee di ko def ci biir ak njabootam di ko maggal di jàng xasiida yi moom ci boppam ak njabootam toog di ko teewlu mu leen di berndeel ak wax li nga xam ne moom la sëñ bi tagg yonte bi sallallahu alayhi wa kon loolu mooy li nga xam ne moo ci jiitu bi mu demee nag ba nga xamee ne nit ñi commencé nañ ko jublu si ñinga nga ñoko daan siyaare ci bis bobu yépp mu nak xeyna man man na baña mën naa li man na baña yamati ci biir waaye mm. xëy na mënees na koo génn ci ëtt bi ñepp diko ko di ko bu baaxa baax ci dañ ko commencé def ci biti ñepp ñu bari di fi dajé ñinga nga xam ñoo daan siyaare ci bis bobu yépp gis ñariñ nim ko daan defee ak ni sunna wo mo mm. waral ñepp xamé mon ko ba ko fekké ci ci ci waxtu wo lool nak lim ci jublu won rek mooy ihyaa'u mawlidil basir yahmil xiyaala wad duyur moy di ko ci sa biir kër ngir ar sak njabot itam njariñ loolu nga xam ne moom la ci Seexul mu wax ci bayit woowu mu man koo mu mën koo am bu baax a baax kon noonu la continuer di commencé yaatu ba ba génn ci biti mbooloo mi di ko commencé fekke ginnaaw loolu it mu jox ndigal daayira bi nga xam ne moo feete fii ci kër gi muy daayira Tawfeex bi nga xam ne euh, moo lëkkale taalibe mi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooy soppeek ñëpp rek njaboot geeg lépp jox leen ndigal nag ñuy taxawal guddi gàmm gi fii ci kër gi loolu it mu ñu ñu di ko def defin wu am solo woo xam ne dëpp ak sunna ndax dara du mënu cee génn sunna ba moom mu di ko teewee moom ci boppam daan teewe njàng mi daan ko defal boppam di ko defe it defin wu wu yéeme lool te te te sunna lu xam ne boo fi toogee sax doo bëgg guddi gi jeex loolu it di di di defin wu am solo dan jàngal boppam it euh, xasida ak limaahin basirin di ko booleeg jës bu nga xam ne loolu am na bu bu bu wér a wér ci ci yoonu murit donte xissa bi nettali gi man mën na fee bañ a mën na fee bañ xaj waaye nag gis nañ gis na ci moom ci jëmmam yaakaar naa du defantu ci mbindum muñ ko wan ne ko mbindum sëñ bi la mi ngi ko gisee ci sëñ euh, Moustapha euh, xasida ci loolu la sukkandiku daan jàng it limaaxin basirin boobu ci boppam nga xam ne daa am nañ ko xaaja jës bu ak limaaxin basirin bi waaye teewut yi tam nii nga xam ne noonu la nii la sëñ Abdou Lahad wax léegi nga xam ne noonu la noonu la sëñ bi daan dundale gàmm muy lu ñu xam ñukay défé ci jumaa jeeg yépp tamit daan am ci kër gi ñu défé non noonu kon da mom da jël li bax lepp mu bolé ko bu gis lu mu gis né ci siñ bi la juggé rek mu xamné ne lu am jariñ la duko duko tek né ne da koy jël bolé ko ci biir liggéey bi loolu it moy moy lu am jariñ baña bayyi dara buñu la ben ngi ni ñaara ngi ni mën nga jël ñaar yépp mën nga jël ñaar yépp kon yow nga jël ben di bayyi ben kon loolu moko dugulon ci lu xeyna qissab limahin basir jess buñu bare bare dinañ ko xam waye leeral gi mën na baña ki liko sababit moy wax nañ ne euh, daan dem ci sëñ Moustapha xasida moomu ci bisub gàmm wala ci weeru gàmm yi sa jam jamonoy gàmm gi bu demee jàng mu wan ko téere sëñ bi yëpp xasida yi ngir xeeñ ci lu baax rek mu jàng ko bu jàng ko barkeelu ci mbindum sëñ bi bu noppee dañu def ko ci eh, kaas ñaan ci ngeen nit ñi mën koo jariñoo xëy na mën naa dugg ci li sëñ bi doon wax ci guddi gàmm bu ñu tegee ak ak paan bu ñu noppee ñëpp barkeelu ci mën naa mën naa dugg foofu bu baax a baax kon loolu mooy daanaka moom mooy moom mooy kii bi ci tënk ginnaaw loolu it bi nga xamee ne euh, kon ni ma ko waxee moom moo ko daan jàngal boppam ci ci kàddoom yaakaar naa bëri na yaani serment yi ñu ci am yoo xam ne moom moo daan jàng limaaxin bi ci boppam daan ko ànd ak euh, Serigne Fallou Touré mu daan jàng jës bi noonu it na ko daan ànd ak ak mboolem xasiday xasiday euh, kii yëpp rek ba ba ba guddi gi jeex ginnaaw loolu it biñ yeggee ci jamonoy 2010 bi nga xamee ne Eh, sëñ sëñ abdul sëñ Cheikh Mamadul Lamine Baara moom Cheikh Mamadul faadil jóge na fi yàlla na ko suñu borom dolli leer eh, sëñ eh, Abo wuutu ko lu jiitu loolu kër sëñ Fallou gi nga xam ne moo nekkoon luga di di kër gu am solo te cosaani lool di di kër gu mat a bàyyi xel sëñ Fallou fonkoon ko loolu itam ñu fa daan dundal gàmm gi ci jamonoy Cheikh Mamadou Moustapha Fadil moom xam ne moo ko daan defal boppam bi nga xamee ne dem na ba mënatu ko mu digal ko sëñ Abdul Baraka bi sëñ bark Baraka nekkee xalifa Cheikh Mamadou Fadil nag xam ne fii la koy defee ci kër gi mu yebaloon fa sëñ Mamor yabal yabal yabal ga nag ku xam cosaan di nga xam ne yabal nañ ko fu ñu ko war a yabal ngir ndax ay mbokkam ak ay léppam daal mën naa wax ne am na lu Louga am na fa am na fa am na fa kii ni mu ko amee fii fii Touba ci ci ci ci ci ci tënk ci ko ci ko xam loolu nag kon dem gam fa dem fa dem gi di fa dundal gàmmu gàmm mënees na ko gis ci saahir mënees na koo gis itam ci ci baatin kon lolu lu lu xëy na ko bañ kon eh, mu dem fa diko di dundal jamono 2010 nim kan dundale fi rek bim fay dem it mu wutal njabotam gu bax gi fi ci kër gi ci njiital sëñ Moustapha boole kook sëñ Abdou Lahad Mbacké mum seigne Abdou Aziz mum seigne Afé mum cheikh mum Mamadou Sali mu ko ak mom ak mbolam njabor gi yep ak daayira bi comme ni mako ko won légui ñu di dundal fi ci kër gi mom muy dem jëfé ndigal xam na ndigal la ko téye woon fii mu di ko defee fii ndigal it moo ko yóbbuwaat fee nga xam ne fa la ko doon defe ji muy ca ca Louga di fa gën a feeñal liggéeyub Sëñ Fallu di fa gën a feeñal it liggéeyub Seexul Xadim di ko fa dundal bu baax a baax noonu it la ko njaboot gi doon defee fii ci kër gi moom mu di ko defee foofu ca Louga ni mu ko doon defee fii it ko doon la defee foofa it di ko ànd ak mboolem njabootu Sëñ Fallu gépp rawatina ku ci mel ne sëñ eh, Seexu mi Mbàkke moom Seex Mamadul Fadil eh, eh, ginnaaw bi xëy na ci at at mu mujj mi nga xam ne ci la ko tawat xaw a jàppe ci la ko ci la dellu siwaat fii ci kër gi nag ci la yebaloon bàyyi woon sëñ euh, euh, seexum mi moom mu tudd léegi moom mu di ko fa mu di ko fa defee wóotu ko fa waaye nag teewut fii nga xam ne fi la ko tàmbalee woon at mu mujj moomu ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax moom moo tàmbali njàng mi ci biir néeg bi ñëpp ñu ñu toog mu ñu ñu ubbi njàng mi na mu ko daan defee teewut mu ngi ci xëy na xaala bu xaw a kii waaye nag te wut defee na ko nam ko daan defee fas yéene tey xeeñ ci it ndigal yonent bi sallallaahu alayhi ndigal seexul xadim mi nga xam ne moo taxoon mu muy dundal guddi googu xam na ne it lu mu ci lu mu ko dundal lu mu mën a mel ak lu mu mën toll it njariñ li du ko du ko romb du romb njaboot gi mu ko digal itam moo waral guddi googu moo ko tàmbali ci biir toog it ci biir di di diglu li ñuy def ci biti ci njaboot gi nga xam ne moom la ko moom la ko digaloon boobu ba léegi it noonu lañ koy wayale fii ci kër gi sëñ Moustapha di ko jiite ànd ko sëñ Abdou Lahat moom ma tudd léegi ak njaboot gi yëpp ginnaaw bi it ci lañ ci yokkaat daara ji ci biir liggéey boobu ngir ne liggéey bi yëpp daa war a gën a yaatu di gën a di gën a tisaaroo seen jiil it féete fa ak mboolem jab yi nga xam ne ñoo fa nekk daara am ñu nekk fii di ko di ko dundal fii am ñu nekk foofu it di ko dundal ak mbooleem barab yi nga xam ne yëpp rek sëñ Mamour mooy kilifa ña fa nekk ña ngi ko fiy dundal di ko fa melal na mu war a mel mboolem daara yi nekk Dakar ak yëpp rek ni mu war a demee kon dal daanaka loolu mooy li nga xam ne noonu la ko daan dundale dundalin bi it weesuwut jàng alxuraan rek ni mu ko waxee woon taxasi bi sunnati jàng xasida yi nga xam ne mooy tagg yonent bi salaam salaam xencuwaat jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mën koo roy man koo jariñoo bu baaxa baax kon loolu rek daanaka moom mooy kii bi kon xëy na ci tànk rek Sëñ Moussa it mu ngi ci soñ eh, daayira yëpp ak njaboot gi yëpp mboolem daayira tawfeex bi ak mboolem yi ci aju ñëpp am na lu ma fàtte it mooy ginnaaw bi it am na daayira yu sosuwaat ci ginnaaw mel ne daayira soxna yi yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci koñ bi eh, soxna Maawa Ñang jiite leen ñoom it ñuy dundal kii baax am ci taxawaay bu rafet lool macha allah di ko ànd ak waa koñ bi yëpp ak daali bi yëpp ak mbokk yi ak wëllëre yëpp kon daal daanaka rek mënees naa wax ne sëñ bi ni mu koy dundale mooy ni ko Cheikhul Khadim digle woon mooy ni nga xam ne it noonu la bëggee woon ñu di ko def noonu it na ko la ko ak njabootam sàmmale ba ndax toqantaloon toqantaloon te taloon na leen ci lu jiitu bay bañ xam ko bu baax a baax moo waral it incha allah noonu rek lay wéyee di ci soñ ñëpp bu baax a baax di ñaan bayit wi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim wax ci jës bu fekk ko fa mu nekk fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu xada xindal xisaabil mufrim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ak jërëjëf sëriñ Seexuna sëriñ Mamour Mbacké mu Seex Abdul Fadal wax ji am na solo lool leeral gi am na solo ndax sëñ Ahmadou Mbacké yu fay mi nga xam ne suñ jëwriñ la day bëgg lu mel nii lool ndax ñu dundal gàmmu ak ña koy dundal ñu fekki leen ñu gën a leeral gàmm gi ni ñu koy doxee ndax lii moom ci Tuubaa gépp boo demee Daarul Muxti boo demee Daarul Salaam boo demee feneen noonu la ñu koy defee kon ñi ngi santaat bu baax ci lii waaye nag ñu bàyyi ci xel ni mu ko daan defee moom taxsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiadil minnati li muxlisin lu mat a bàyyi xel la wa dumaali fi l masaai wa sabaax waax lisan kon li muxlisin waax lisan yooyu yëpp boo déggee ñu wax ko rek am na dafa mat di bàyyi xel di ko di ko foog di ko waajal ci sellal gi ndax sellal gee ko yóbbu fii tey kon loolu itam ñu ngi ci sant yàlla baax mu jaa ngi jës bu ba ci li jàmmi lan nasayi ñu taxaw ñu jël mooy bu ba ci abli tilaawa ñu taxaw wasixtu bi rabbil azim ba ci wasixtu bi baaxin surtout abdaloo bi ñu taxaw ki ñëw jël barsan bi daal di jàng ñu noppi lañ koy wal ca paan boobu wala ndab la ndox moomu amul lu mënta saafara lu mënta tawat tawat junne sax tawat la joo xam ne nii yaakaarutuñ ko tawat ndox mu mën na ko saafara kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon ñi ngi nekkoon fii ci barab bu tedd bii Cheikh Abdoul Moustapha di xalifa Serigne Mamour Mbacké moom Cheikh Abdoul Fadal di ñaan suñ borom defal ko lu kawe njort ci jataay bii borom man ko kiiraay man na ko sa njaboot gaa ngi nii di waajal bis bi nga daan waajal gis ngeen leen lii ñu koy waajale loolee yàlla na ko suñu borom defal xelam gën a dal fam nekk te ñii fi nekk itam suñu borom yàggal leen wéral leen lool te seen yaram di fu ñu toll ñuy sant si Abdoul Ahad bu baax a baax a baax moom bàjjen soxna wa si Abdoul Khadir di sant it sëñ Seexuna bu baax a baax ci wax ci sëñ Abdoul Khadir li ñu lay santaat baax di la gërëm ndax jottali gi lépp yow la di santaat euh, ki nga xam ne mun la àndal ci liggéey bi nga xam ne moo koy taxawu monté ko moom itam bañ man koo seetaan ñu ngi koy sant bu baax di gërëm muy sëñ Ibrahima Khoule sëñ Sa Salih kon mbokk yi lii rek moo nekkoon waajtaayu gàmmu yàlla ñu ci yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam tey ñaanal Cheikh Abdourahman euh, mi nga xam ne moom itam moom si Abdoul Khoudous Eh, tubaarkàlla eh, yàlla na yàlla defal ko lu kawe njort ndax kàggu la kàggu la goo xam ne nii ñu bari jariñ na leen te ci biir njëriñ li mu fi desel mën nañ cee jëriñuwaat bu ba a baax a baax kon yàlla na yàlla defal ko lu kawe njortam te barkeel li mu fi bàyyi ci barkeel sëñ Tuubaa Seexul Xadiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh التواء